il a profité d'une situation politique il faut être un politique un homme politique averti et aguerri pour mener des lectures lecture politique pour moi, je suis d'accord avec toi am dafa waroo une alliance pour la République. mais amul fit am amul fit su politique. Hmm. mais kan moy andak mom dans l'alliance pour la République parce que génnam alliance pour la République peut susciter sa mort politique. ça? son enterrement politique c'est Amadou Ba. pourquoi. il va amener beaucoup de gens. il peut pas il va partir avec ñi nga xam ne dañu rattaché à l'Alliance pour la république gis nga ñi créé APR ba 2012 duñ dem. Non. Hmm. ils resteront là dans le parti. Donc, xeex xeex bi ñi nga rattaché woon ñëw après la victoire. Hmm. ñooñu ils vont partir avec Amadou. Hmm. ci ñu ñu Avec ak certains certains yoo xamante ils se disent que nous dañ ko jege da ay waayam lañ ak nangam sangam ñooñu dinañ dem parce que ce fa toogee dootul exister. exister. le Benno le Benno ça c'est vrai le Benno ma nga jeex ba élection ya jeexee. Hmm. Hmm? Benno Bokk Yaakaar ah, ba élection yi jeexee le Benno tas. le Benno tas. ça c'est vrai. on va aller vers une autre reconfiguration. entre le PS et le Taxaw.

Dominique dans dix minutes on arrête. dam leen ne ñoom de. dam leen ne Barthélemy waaw waaw moom kese moo ko mën dam leen le meilleur profil. waaw quand même parce que mënu am ay candidat jeune nga andil ñu ko mag. Hmm. waaw non Amadou moom Amadou moom aujourd'hui ñu war a assurer la relève au sein de l'alliance pour la République obligatoirement ay ndaw la war a ne. mais mais ban ndaw. benn nit. Birame Faye mun na dajale ñëpp. mais dafa am limite. il est de Fatick. la mooy limite bi. il est de Fatick. nu mu nekkee limite loolu. si parce que Macky Sall mënul ba créé parti bi jiite jiite nekk Fatick nga andi Birame Faye mu nekk Fatick parce que ki mën a jiite. da nga ragal ñu ni ñu ni ñu ni ah, dafa am benn affaire Fatick koy def hmm. les gens vont ne vont pas l'accepter mais Birame am na profil parce que mën na dajale ñëpp. mais Birame na amul kii tamit aussi. mën na dajale ñëpp xam nga problème bi mooy. mais kii jiite kii jiite parti suba a dajale ñëpp

Sénégal yi léegi boo Sénégal loo dem moo tax ma ne la ay opposition bu yambara bi mënu fi nekk fi kii opposition genre Sonko mu sadd Sonko bu ñëwee kaay moo ñu xale yi ñuy saaga ñu reyante yooyu tu verras opposition bu yambara mënu fi nekk APR biir APR waaw loolu gëm naa ko des jeunes vont sortir mais yan jeune pour mettre des jeunes yan jeune damay bañ a joxe tour parce que am na ñuy liggéey am na ñuy waxtaan ah bon am na ñuy liggéey jox ma information am na ñuy waxtaan am na ñoo xamante ni man am na ñu ma am na ñu ma approché pour loolu mais mais pourquoi pas toi su ñëpp ci xamee foo jëm doo jëm doo est-ce que tu comprends maintenant il y a des gens qui travaillent pour le retour de Macky Sall. Hmm. mais Macky Sall gëmu mu modèle attention ah. attention attention. bu noppale koo day dellu su ah hmm. élection législative yii ñu jëm. c'est Macky ah. Sall qui va faire la liste non non législative on moom gëm naa c'est lui qui va faire la liste. Il y am ay surprise énorme parce que gros bonnet yëpp duñ ci ne. yan gros bonnet. Macky Sall il y a ba gros bonnet il va régler ses problèmes li mu mënul régler ba mu nekkee président de la République moom lay régler. mais Amadou mo moo moo war a am fullaak fayda génn mais mais du ko maintenant xam nga tax ma la dina genn. ses proches collaborateurs. Dominique jëloon photo bu rafet nga ñi ko jege ñi ko jege. mais commencé nañ démissionner de la paire. comme ñan jox ma benn ñi ko jege. ñi ko ah, ñi nga xam dañu nekkoon ci bir di bind nañ Sophie Ndour bind na ci page Facebook am ne démissionné na APR. Sophie Ndour elle était proche de d'elle dafa bokkoon ci cercle restreint. Youssou Ndour man maa ngi doog a dégg. moom moom laa la wax ñu bëri ah, xamuñu leen. waaw ñu ci bëri xamuñu len dañoo bokkon ci sen cercle restreint ils sont de Parcelles Assainies parce que ñom ñoko ko njëkk porté ñooñu commencé nañ démissionner de la paire hmm. commencé nañ woné sen bop hmm. ba paré la lettre de Amadou Ba ci ci conclusion bi. Hmm. dafa wax fi mu jëm. te ñemewu ko. malheureusement ah, Amadou dafa ñemewu ko. ñemewu ko te li tax ma la ñemewu ko jour dimanche passé jour élection yi. dañ ne day ñëw permanence ma ne su nekkee day ñëw permanence te du déclarer victoire am na toog këram lu muy wut permanence lan la fay ah. wut. mais permanence ah. non dégg politiquement yow candidat bi su nekkee da ngay ñëw permanence Sénégal xamuñu loolu. Mm. su nekkee da ñëw permanence résultat yaa ngi génn su nekkee da ngay ñëw te doo déclarer sa victoire demal nga toog. waaw ah, dëgg la mais mais mais victoire moom mënu ko am force déclarer. moo tax ma ne la kon lu mu fay wut. waaw ah, war foo dem. moo tax ñëwu fa finalement. si il est venu ah bon Bref, def conférence. il est venu laay pour wax suba laay wax. li ngay wax suba nit ñi xam nañ ko. il fallait être élégant et accepter la défaite le jour même. Ah, Amadou Kay donc ñàkk hein? ñàkk mais c'est c'est c'est du. non Amadou Ba moom c'est du gâchis. Hein énorme gâchis. ah maa xalaat du déglu ñu mu war a déglu. xam nga lu tax ma wax la xam nga lu tax wax la. ba ñuy jiixi ci biir. dafa hein? trahison dafa am ak ñàkk am. gis nga ba nga sentiré né waji soxlaw la. trahison dafa am nangam ci ngay génn dem sa yoon man ne wax naa ko mu ngi toog maa ngi toog keneen une troisième personne toog ma ne ko carrément Macky Sall wóoluwu la yéen ñaar wóolu wóolu wantewu leen dangaa war a génn dama sa bopp sénégalais yi dooleel la ndax sénégalais yi euh, mere nañu Macky Sall mere boo xam ne nii ku mu joxoñ loo am dara waaye dafa ko bëggoon toog toog muy dox xam nga lu ko dox ci ak tamit combat par procuration xam nga lu ko dal la ma waxoon Cheikh Ba élection local Médina

waa Pastef ku ñàkk jom ba dem tëb seen. jardin fekkee ma ci boole sax amatul gay l'original bàyyi na. déet fekkee ma ci boole sax bu Youssou Ndour amatul fekkee ma ci boole bu Youssou Ndour amatul. waaw gis nga xoolal wuyu ma émission bi jeex na gis nga yéen bàyyi leen fin émission ngeen yàq émission non non non dañu woon dëgg rek dañu woon dëgg. ah mais Bougane. non waaw Bougane moom fekkee ma ci boole nag. waaw waaw waaw fekkee ma ci boole dem na teel. Bougane Bougane Bougane Bougane moom su ma dégguloon la ma waxoon la ma waxoon Youssou Ndour laa ka te Youssou Ndour déglu na ma. mais Aïssatou dañuy kaa de il faut ñu kaa nag. lu ñuy kaa dégg naa gars yi sa gars yi fayuñu fayuñu korite bi. waaye man Adama Fall lan laa ko def Adama Fall lu ma def Adama Fall ba nga ba ba nga Adama Fall opposition ma nekk ma opposition mais nag il faut ñu wax ko nag dafa sensible dafa sensible waay ah, boobu man man ba ma déggee lu immédiatement laa dem dem xool ji sama compte bancaire xaw ma ci woon dara waaye ah euh, euh, léegi danoo bëri noonu GFM moo bëri noonu danoo bëri noonu dooma yàqal man man du ma bett samay contrat benn salaire laa dese nga bëgg ma ko yàq <laughs> Adama Fall defu ma leen dara. bàyyi leen ba bàyyi damaa bëri noon bu leen ma yokkal ay noon. yow yaa yokkal sa bopp yi noonu